asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di dalal ci xibaaru bëccëg bi bayeekoo QTV ak Q ak bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak ko Kole ci bopp xibaar yi njiitub réew mi di wuyoo ci président aadama Barrow moom naka ñaax na doomi réew réewi bi Bissau yi pour ñu tegee boor seeni xeexub xeet ak xeexub politique dajaloo naka bootu ci ginnaaw njiitub réew bu fa nekk si jamono ji di wuyoo ci président Umaro Sissoco Embalo ministre bi saytu wàllu bi yoon yi ci àllarba bu ñu paase signé nañ ab nanguto seeni diggante ak ñaari buntu taseekaay xibaar yu nekk ci biir réew mi muy QTV ak GRTS nangutoo bi naka ñëw na pour naka ñaari buntu taseekaay xibaar yi ñu askan wi lu jëmee si ñaawteef yi dee am ci yoon yi. mbokk lii moo doonoon bopp xibaar yi ñu taxirlu rek bu ñu dellusee daal di yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgub tey bi. njiitub réew mi président Adama Barrow moom naka ñaax na doomi réew yi Guinée Bissau yi pour ñu tegee boor seen yëfi fitna dajaloo naka bootu ci ginnaaw ki nga xam ne naka mooy njiitub réew bu fa nekk di wuyoo si président Umaro Sissoco Embalo mu ne lii naka buñ ko defee si la gis yéene boo xam ne naka njiitub réew mi am na ko jëmale ko naka si mbirub réewam ginnaaw ba ma doon waxtaan ak taskati xibaar yi ba ma dëggee tànkam naka si Banjul International Airport bayeekoo naka sa Guinée Bissau njiitub réew mi di président Adama Barrow wax na ne naka ki nga xam ne mooy njiitub réew Guinée Bissau bi di Embalo moom mel na ni rek comme yeneen njiitub réew yi nekk ci biir Afrique yi nit ñi wala sax doomi réewam duñu xam yéene bu mu am wala sax duñu gis liggéey bu mu nekk di def bu fekkee ne dajaloo wuñ bootu ci ginnaaw ginnaawam mu nekk kóllëre naka yàgg na moo jaar diggante réewub Guinée Bissau ak réewub Gambia te naka Guinée Bissau si jamono ji doon ab dëkk boo xam ne naka yàgg nañoo am seeni démocratie ñu ngi gën a takk seeni tànk tibe pour gën a rataxal kóllëre gu nekk diggante réewub Gambia ak Guinée Bissau sa réew moomu doomi réew yi Gambie yu bari ñoo fa nekk te naka ñenn ci ñoom génn nañ pour bokk ci ndaje buy dalal jiitub réew yi Gambie bi te naka ku leen jiite di ambassade bu nekk sa réewub Guinée toogal fa naka réewub Gambie di wuyoo ci Alieu K Jammeh njiitub réew mi moo wane na mbégteem ak kontaanteem ci dalal buñ ko def nag di ñax ambassade yi wala sax doomi réew yi Gambie yu fa nekk pour naka ñu gën a takk seeni tànk tibe yi gis ne naka indi nañ jàmm ci réew moomu njiitub réewi Gambia bi di président Adama Barrow am na yaakaar ne njiitub réewi Guinée Bissau bi bu fekkee ne doomi réewi Guinée Bissau yi tegee nañ boor seeni mbirum fitna bootu ci ginnaawam dina indi na ab wéccite si réew moomu wala sax dina indi jàmm joo xam ne kenn foogeewut ko jëwrin bi seytu wàllu yoon yi ci biir réewu Gambie bi ci àllarba berkub démb bi sëñee nañ naka ab nangutoo jaarale ko seeni diggante ak ñaari buntu taseekaay xibaar yu nekk ci biir réewi Gambie di QTV ak GRTS jéegoy naka ñu jël ko pour gis ne naka ñaari buntu taseekaay xibaar bi yee nañ askan wi lu jëmee si ñaawteef yi dee am ci kaw yoon yi mbokk yi ñu ànd ak Biram S Diop ci yaatal bi. ministry of works transportation and infrastructure muy bunti liggéeykaay nguur gi ñu amee muy wàllum liggéey wàllum dawal oto yi ak tam na muy yenn liggéeykaay yu nekk fii si biir réewi Gambia àllarba bi ni passé di am barki demba leen amoon na ab nangu taw nga xam ne defoon ko si diggante ñoom ñi ak ñaari bëri bi tasekaay xibaar ngeen a xamee si QTV fii nii ak GRTS muy télé réew mi pour gis ne dañoo jëm yokk lépp li war a mun a ñëw pour yee nit ñi di xamal nit ñi yan façon nga dayoo ak yan façon nga mosuwaay mooy war a mun a am c'est que nit ñi nekkoon di bàyyi xel si yoon yu nekk fii si biir réew yi Gambia ak mbébét bi nga xam ne réew mi am nañ ko pour war a mun a liggéeyaat yeneen yoon yu nekk fii nii si biir réew mi. te nag ñu ne nangutoo bi dina war a tax muy télévision yi muy QTV ak GRTS ak yeneen rajo yu nekk fii si biir réew yi Gambia ñu war a mun a nekk am nag saa yu nekk nag ay yeneen waxtaan yu ñu am si leen yeneen bëri bi te sekk ay xibaar yi pour jéem a yee nit ñi xamal leen lan moo nekk dayo bu nga xam ne di accident mun na ko war ba nit ñi ñàkk seen bakken am ñi nga xam ne sax mën na faa nekk di loru ak ñoo war a mën a mëtandiku yooyu nga xam ne de du war a nekk di amaat si kere bés bi nag gannaaw bu ñu doon bind bii nangutoo ku nga xam ne moo nekk Baye Lamine Diop moom mii di Baye Lamine Diop moo nekk jur mu amee muy wàllum demandiku oto yi wàllum liggéey fii si biir réew yi Gambia moom nag wax na ne que mbébét bu tax ba ñoom ñu dal di jàpp muy jaartees ak QTV mooy nag bokk nañ si ñi nga xam ne si boppam de askan bi dañoo nekk di leen seetaan saa su nekk te mu ne rax dool itam dina gën a yombalu baax a baax mu yéene si gox goxaan yu nekk fii si biir réew yi Gambia ñu war a mun a xam mbir mi nu muy war a mun a nekk di demee mu ne moo tax jamono ji di leen am nag ay yenn bataaxal yu ñoo nekk di arrêté daf ko si wàllum muy vidéo ak tam si wàllum muy audio mu ne pour nit ñi war ko war a mun a gis mbaa di ko dégg ñu xamal leen si seen làkk yi ni ñoo war a mun a aaree seen bopp si lépp lu nga xam ne moo ko musiba yuy war a nekk di am si ko tali bi te mu ne rax si dolli itam borom xam-xam bi nga xam ne xam nañ bu baax si fànn muy yoon yi dinañ baaxoo di waxtaan ak ñoom ñoom ñi itam ñu jël seen i xam dugal ko si biir façon yi ama xibaar. moom Baye Lamine Diop mu daal di yaatal ba léegi mu ne kon naka ñoom jamono ji ni amaale nag jéego bu nga xam defaale ko pour gis naka mu yii fas nga taxawaay dinañ ko daal di sàmm ndaxte warugal la pour ñoom ñi ñu war a xamal nit ñi ñu ñoo war a mun a aaree seen bopp si wàllum yoon bi tam askan bi tam ñu seetam ñu war a mun a toppee lépp lu war a mun a aar seen bakkan ndaxte loo su amee dina tax bu baax a baax réew mi gën a mun a nekk di nekk si jàmm. gannaaw bu ñu jël kàddu si kër bés bi ku ngeen a xamee si Abdou Abdou Touré moo nekk directeur général bu Gambia Region Television Service muy GRTS moom nag dëggal na ni ñoom préparé mu baax a baax muy lépp lu nga xam ne mooy aju si fànn muy programme yu ñoo war a mun a am si seen GRTS bi nii dinañ ko def ndekte loolu bokk si lu nga xam ne de moo nekk ñoom seen fànn muy mbébét ndeg mu ne GRTS nekk na bérébu tasekaay xibaar mi nga xam ne réew ko dali moom te nag seen fas yéene nag mooy ñu jéem a nekk di làppatoo lépp lu nga xam ne mooy war a mun a aar askan bi si musiba yu nekk di am si ko tali bi si wàllam moom nag ku ngeen a xamee si Malika Malika moo nekk general manager bu QTV moom nag wax na ne mu ne nag bés bi nekk na bés bi nga xam ne bésu màgg la nag lii nag nekk na anam bu nga xam ne lu ittee mi la te kon nag QTV kenn dal dem mu dal di des gannaaw te kon nag mu ne lépp lu nga xam ne moo nekk xibaar bu am solo bu ñu war a mun a jëlee si lii nii dinañ ko daal di ko lappatoo pour askan bi gën koo daldi di am suñu gën a nekk di leeree. ndeg mu ne jamono ji nag QTV ñëpp xam ne leen bu baax a baax seen fanam yaatal seen leeral ak si lépp lu nga xam ne moo ko aju si seen fan ak gis-gis bu ñoo ne suñ ko defee dina war a mun nit ñi ndeg te mu ne nangatoo bi ne dina war a tax bi leen naka muy boobu façon jéego bu ñu amoon ñu gën ko war a mun a nekk di ko yokk si ñu gën a nekk di yombi gannaaw bu loolu weesu nag si bopp nag leeral ne ne mu WHO muy mbootaay bi nga xam ne mu amee mu wàllum wér-gu-yaram si adduna bi nag bind neen si atum 2018 maanaam mu nekk ñaari at si gannaaw ne Gambie naka mun nañoo jàpp ne su nekkee téeméeri nit dee neen wala boog ñàkk nañ seen i ñeenti dee si boppam de mun nañoo jàpp ne si accident lenko ko daldi ko amee. mu amaana beneen gëstu nga gëstuwaatoon nañ ko si atum 2017 maanaam mu nekk ñetti at si gannaaw bu nga xam ne wax ne ne Gambia. ñoo toll wàll si juróom-ñetti réew yi nga xam ñoo nekk si àdduna bi ñi nga xam ne que jàpp ne ne seen wàllu muy ay doom ñuy xool ñàkk seen bakkan si àdduna bi de si wàllum accident nekk na anam bu nga xam si boppam de ñoo toll si juróom-ñetti place bi. loolu moo tax muy ministre of work transport ñu amoon ak nangutoo bu ñu defoon si diggante QTV ak GRTS. kuréelub TRRC bi ci alxamesub démb bi commencé na naka di dalal seeni seede yu daan liggéey ci banqaasub NIA bi te si jamono ji naka ñu tuddee leen SAS ñii naka ñu bari am nañ yaakaar ne ñu bari si ñoom dañu yàq naka lu jëmee si àqu ak yelleefi doomi aadama ci nguur gu ñu passé doonoon nguurub Yaya Jammeh ñu teewloo Biram Diop ci xibaar bi Demba di alxames yem ak muy ñaar fukki fan ak ñaar si weer bu nekk nii kenn ku ñu gën a xamee si Lamine Bojang Lamine Bojang nag demoon na si TRAC pour jéemoon nette lu baax a se li nga xam ne moom la daloon di jànkuwanteel si jamono muy nguuri Yaya Jammeh nag si loxo ñu gën a xamee si NIA muy National Intelligence Agency moom nag si bopp nag wax ne ne ñoom nag dañ yëkkati woon bu baax li nga xam ne moo ko seen wàllum jàpp nag tuumaloon ko ne moom dafa nekkoon jël xibaar di ko war a àggee ku ngeen a xame si Pandéri Mbaye Pandéri Mbaye mii nag moom moomoon muy Freedom Newspaper gannaaw bu loolu amee nag si boppam mu nekkoon lu nga xam ne si boppa ne mu métti woon na loolu nag ñu jàppee ko fa nag yóbbu woon ko si ak. police station bu nekk Fournes bi Farafeñe muy Farafeñe police station moom ak yenn façon moromam ñi nga xam ne bi lee den fa dal di jàppe naka tuumal leen ne de nekkoon def yooyu façon muy ab bind mu ne nag gannaaw bu fa nekkee nag ab diir foo ne si am police station bu nekk si biir Farafeñe boobu lañ ko fa jëlee moom ak ñeneen yóbbu leen si police Kodas bu nekk foo ne si biir Banjul fu nga xam ne nag wax nañ leen lan moo tax beneen dal di jàpp ak tam lan moo nekk mbibét ak nañ bëgg pour ñoom ñu war ko mun a nekk di ko leeral si li nga xam ne de moo dal di tey police ñoom seen wàllum xel. mu ne si kere lu nag gannaaw bi nga xam ne loolu si boppam jàppoon ne leen ba nekk di leen bunduxatal di leen toroxal di teg bu baax a baax nga xam ne moo fitna bu nga xam ne si boppam ñoom day yéen lawuñ ko woon mu ne boobu leen ko jël moom ak yeneen moromam ñu war a toll si ñaar fukk ak juróom-ñaar yóbbu leen si NIA e seen makkaan bu nekk foofu ne si wetu Banjul ñu tëj leen fa ab tëj nga xam ne si boppam de jàpp ne ne doon na leen fa bunduxatal leen fa ba lépp lu nga xam ne si boppam de doomu aadama de yellawut ko ñoom de teg ne leen ko fa si ñeenti weer ak juróom-ñeenti fan yi nga xam ne de moom ne fo dal di nekk te nekkin bu ñu fa dal nekkoon nag nanguwuñ kenn ñëw seet si leen nangu ñu atte leen ak nangu tamp am looya war a wax si gaa seen fànn wàllum nekkin mun ne lool la fa gaa dee nekk na ba yàlla bu dum dalee ba dal di jeexal ñoom jàpp nga xam ne si bopp ne jàpp na leen ko mu war a toll si ñeenti weer juróom-ñeenti fan. ñaareelu nit bu nga xam ne nag demoon na pour yëkkati nag kàddu nag war ko mën a yaatal si kër bés bi mooy ku ñu gën a xamee si Malandik Mballo maa Malem Mballo nag jamono ji moo nekk acting principal maanaam njiit la si jàngekaay mi ngi nag xamee si Ndaws Comprehensive Upper Basic School bu nekk foo na si wetu ni Kanifing mu ne moom nag mu ngi fàttali ko baax a baax si weeri octobre atum 1995 mu ñaar fukki at ak juróom si gannaaw moom fu nga xam ne mu ngi nekkoon jàngale si boobu jamono si jàngekaay mi ngi nag xamee si Saint Augustine High School bu nekk foo na si biir Banjul mu ne mu toog ab benn jamono rek mu jëloon ab si soom ne léegi nag dafa bëgg a ñëw pour wàññi ñeneen ñi nga xam si boppam ñu fa nekkoon di jàngee te fekk na seen tubéy mu nekkoon tubéy bu gudda muy pantalon mu dale ko wàññi mu def ko lu nga xam ne mooy ko tubéy bu gàttam maanaam mu nekk sot mu amoon kenn ku nga xam ne nag mën nañu jàpp ne mu ngi nekkoon jarbaati Yaya Jammeh si boobu jamono bu nga xam ne de moom mu loon dog ñooñu seen fanam muy tubéy bi mu ne mu toog bi ab diir mu am nag ay yenn security officers maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ay wàllum kaaraange yi demoon na ka ko te gannaaw bu ko jàpp ne ko tuumal ko ne moom dafa dog ay tibéy doomi aadama ras dool tam dafa nekkoon di saaga ñu nga xam ñoo daal di jiite muy AFPRC foofu lañ ko fa jëlee nag yobbu ko si NIA e, seen makkaan bu nekk si biir Banjul nekk ko di ko laajte mu lépp lu nga xam si boppam de moom ni ko nekkoon di ko ko laajte nag gannaaw bu loo weesu ko fa jëlee itam yóbbu ko si àll bu nekk foofu na si weti Brikama te foofu leen ko dal di simmi daanaka bi mu dal di dal ko wax ne mu si suuf si tam mu tëddee nag si suuf si ñu nag ak yar dóor ko dóor yu métti nag gannaaw bi ñu ko dóoree foo na si forest bu nekk foo na si biir Brikama te loolu nag mu nekk lu nga xam ne ba léegi métit boobu noonu mu ngi ko baaxoon di ko jànkuwanteel si li nga xam ne moo ko si biir yaramam mu ne boobu lañ ko fa jëlee tam yóbbu ko si policier kotas bu nekk fu ne si biir Banjul boobu ne ko tij ne ko ne kenn du la seet si kenn du la indil dara lilut nga dal fa toog ba saa yi nga xam ne day mun nañoo toog pour dal la bàyyi mu ne nag nanguñu kenn ñëw seet si ko nanguñu tam benn lawyer ñëw seet si ko te mu ne nag juróomi fan yu gannaaw bu mu demee ba jeex nag boobu lañ ko dalee bàyyi mu ñibbiwaat fu nga xam ne moo nekk si këram. banxaasu bitim réew buy saytu wàllum Red Cross bi ñoom naka ñoo joxe juróomi ambulance ak yeneen juróom ñetti moto yuy jàppale naka banxaasu Red Cross bu nekk ci biir réew mi seen mbiru liggéey ñu teewlu Biram Estiop ci yaatal bi Gambia Red Cross Society alxames bi ni passé di Demba yëkkati ne nag dimbal ndimbal nga jox ne leen ko mu war a toll si juróomi ambulance ak juróom-ñetti oto yi nga xam ne si boppam ne dafay baaxoo di war a mun a dimbal ñoom seen fànnaan liggéey pour war a mun a eb ay yeneen bagage mbaa eb yeneen jumtuwaay yi nga xam ne dina war a yombal lu baax mu liggéey Red Cross fii si biir réewi Gambia ñu leen ko dal di jàppale moo nekk Red Cross and Red Crescent seen makkaan bi nga xam ne moo nekk si biir bitim réew ñu leen dimbal bi nag nekk leen dimbal bu nga xam ne ñoo baax a pour dimbale Gambia Red Cross Society ndek soxla woon neen wàllum waruwaay ak lépp li war a nekk di yombal seen liggéey ñu war ko mën a def ndekte seen liggéey nekk na liggéey bu nga xam ne saa yu nekk dañoo war a nekk jëfandikoo oto waaye nag ñàkkoon oto dafa nekk li nga xam ne si boppam ne yàqaloon na leen bu baax a baax seen liggéey rawatina sax mu nekk si jamono muy Covid 19 muy feebaru mbas mi nii gannaaw bu loolu amee nag si kër bés bi kuñ gën a xamee si Jato Sylla Jato la moo nekk président maanaam njiit bi si Gambia Red Cross Society wax na ne ndimbal bi nii nekk na ndimbal bi nga xam ne rafetlu nañ ko bu baax baax a baax te mu ne lu tax ñu rafetlu ko rek mooy ñu nekk di jël seen am kattan jël seen waxtu pour war ko mën a nekk di ko liggéey te fekk di séntu benn butuut si Gambia Red Cross mu nekkoon su nekkee ñooñu si boppam nag ñoo neen di liggéey yi façon liggéey amuñ waruwaay waaye ba léegi ñu nga def leen liggéey ni mu war a nekk di demee te kon nag mu ne lii dina war a tax ñoom ñu gën a amal jomaat pour yokkaat bu baax a baax seen liggéey suñu gën a nekk di rafetee mu ne kon nag ndimbal bi nii ñu ko gërëmee bu baax a baax muy seen ay yeneen njiit yu nekk foo ne si bitim réew te mu ne bur yàlla rek moo leen naa war a mun a fee si liggéey bu ñu war a liggéey si jëm kanami askan bi ak lépp lu war a mun a aar nit ñi si lépp lu nga xam ne moo nekk seen yenn jafe-jafe ku nga xam ne moo nekk Alvina muy Buron Hausa moom moo nekk muy G plus emergency response service bu Gambia Red Cross Society moom nag wax na bu baax a baax mu ne oto yi na nekk na oto yi nga xam ne si boppam ne ñëw na te ñëw na si waxtu bu nga xam ne de moom la ko Gambie gën a nekk di ko soxla mu ne kon saa yu nga xam ne si bopp nag am neen ab yenn ndimbal mbaa am na yeneen woote yi nga xam ne woote nañ ko te ñu ko woote moo nekk muy ministre of health mu ñu amee muy bunti wér gu yaram bi mu ne kon nag loolu dina war a yombal bu baax a baax ne lëkkaloo dina war a nekk am si fanam yi façon ngi ndimbalante mu ne kon nag xam ne ne bunti wér gu yaram bi ñoom leen gën a jege wante si fanam muy liggéey te kon nag mu ne nag lëkkaloo boobu dina war a tax liggéey bi dem si ni mu gën a nekk di yombee mu nekkoon nag oto yi nii dinañ ko jëfandikoo si saa yi nga xam ne la ñoo seen liggéey fii nii si biir réewi Gambia te fekk du am benn façon parparloo si fanam muy am at mbaa mu nekk si fanam muy gis-gis aada cosaan diini mbaa mu nekk sax si fanam muy daraja. Alassane Senghor nekk secrétaire général bu Gambia Red Cross Society moom gërëm na bu baax a baax muy Gambia Red Cross Society ak tam muy International Red Cross ak Red Crescent bu nekk si biir bitim réew mu ne si su ndimbal bi nii ñëw na ñu ñëw jox ko nag Gambia Red Cross Society mu ne kon nag lii nekk na ndam bu nga xam ne su boppam ñoo leen pour jéem a dimbal nag réew mi si lépp lu nga xam ne moo yii yi façon ndimbal. mu ne nag Gambie Red Cross society jamono yi nag continué neen pour jéem a yaatal bu baax maa seen wàllum taxawaay ndekte bu njëkk sax dëgg la amuñ woon waruwaay waaye fekk ñu nga def seen liggéey suñu gën a nekk di yombee mu ne kon nag fukki oto ak ñetti yi nii dina war a tax bu baax a baax si lépp a def bu njëkk te fekk nag waruwaay molaan tax ba mënuñ koo def dinañ dem ba jamono yi war ko mën a nekka di ko def si kër bis ne ñu bëri de moo neen teewee ji ko rawatina sax ku ngeen a xamee si Lamine Dabo nekkoon vice président bu Gambie Red Cross Society Abdoulaye Faye nekk programme manager Bouba Dabo nekk di system management coordinator bi ak ñeneen ñi nga xam ne si boppam ñoo nekk di liggéey si Gambia Red Cross Society mbaa ñoo dalee bokk si mbootaay mi ngeena a xamee si Gambia Red Cross Society nekk fii nii si biir réewi Gambia. mbokk yi ñoo doon doonoon xibaar yi leen amaloon ci bëccëgub tey bi yaatal ngeen di si doon ànd ak Xadijatu Koli ma leen di jaajëfal ci ànd bi wasalaam.